ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci doxalinu réew mi particulièrement mbiru emploi des jeunes bi nga xamante ni moo nekkaat actualité ces derniers temps te lépp mi ngi juddu gannaaw ba fi manifestation yi amee. déjà sax paradoxe bi foofu la nekk maanaam depuis 2012 ñu fal la nga toog fi 9 ans juróom-ñeenti at am na sax ñu ne yokkal 9 ans yi ndax Macky Sall avant sax muy falu amoon na expérience ci réew mi ni muy doxee bépp ndombal tank bu doomi aadama mën a am cim réew Macky Sall occupé na ko liggéey na fonction publique en tant qu'ingénieur nekk directeur général nekk ministre nekk premier ministre nekk président assemblée nationale. maanaam Macky Sall Sénégal dafa wàccoog moom président yi fi jaar yépp moo nekkoon ki mieux placé pour soppi xar kanamu réew mi ndax jaar-jaaram ci métit lépp lu Sénégalais di dund ci galère Macky Sall dund na ko suñu borom daal di koy suturaal mu jàng daal di rampé ndank-ndank occupé ndombal tànk yi gën a mag ba yàlla def li mu doon tey dafa xam ni sénégalais di dund xam ni état di fonctionner kii moo jekkoon ngir defar Sénégal moom royukaay la waroon nekk ñu koy jàngale ci école yi di ko jël comme référence di ko nettali génération yi ñëw mais tey mooy président bi gën a yées ci histoire du Sénégal ndax yées ci président weesuwul ñu fal la juróom-ñeenti at nga nekk ko ci boppi réew mi ñu naan la liggéeyal faale kenn ku jóg critiquer sa gouvernement pour liy defar réew mi ñu def noonu bëgg laa faagaagal rax ci dolli nga ne même bu ngeen yoree ay morso yu xonk faalewu ma leen. da nga maam dugg fi génn fi dañu takk euh, morso yu xonk may wax tam entre parenthèses morso yu xonk man mënuma ko gis du gis lu xonk. xam ko takk lu xonk vraiment euh, damay jàpp ne rek yaa ngi sol sa yére normal gisuma xonk-xonk bi donc lool vraiment may ñaan nit ñi tam bu fekkee dañ bëgg a wax ak man nañu xool beneen façon ba ñuy wax ak man mosoon na fi xew nag mais daal couleur rouge bi man du ma koy gis. nit ñi dem ba xam ne yow kon doo gor mbaam sëf nga boo xamante ni ay dóor nga xam ñu duma la ci mbedd yi wala ni même takk der yi nga yaakaar mënuñ laa protéger nga soogoon ak naan waaw dégg naa leen. maa ngi wax ak yéen ndaw réew mi. leen xamal ni dégg naa bu baax seen yuuxu dégg naa bu baax seen mer ndax xam naa ni chômage bi metti na xam naa ni it ah seen xalaat yëpp mooy noo leen di def ba tekki war nañu toppatoowaat lu ëpp liñ doon def ndaw ñi loolu jàngat la boo xam ne ala kulli danañu indi doxalin yu bees ci loolu. kon moom Macky Sall ay duma la xam. xam naa boo xoolee ba mu nekkee xale mooy ndaw yooyu nga xam ni foog nga dóor leen pour ñu mën a dégg te gëm nañ ni bés buy jógee ci boppi réew mi ay duma lañ ko fi jëlee ndax barki démb gannaaw ba mu ne dégg na ndawi Sénégal yi mu ne yaay dafa organiser benn ndaje pour waxtaan ak ñoom ndekete boobu daf leen woowoon pour dàgg santé dafa war a xam ne dafa am limite boo xam ne boo ko rombee rek yaa ngi dugg ci beneen domaine boo xam ne buñ la toppee ci li ngay def mën na métti ci yow lool nag Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'à l'étranger on vous soutient ou on vous entraîne à aller vers l'anarchie il faut savoir marquer les limites il faut savoir marquer les limites kon kii moom jom dafa xëy mu mais ñu ngi koy xaar ca cappaandaw ga ndax askanu Sénégal moom force tranquille lañ événement yi weesu àdduna gépp la bett parce que ñun Sénégal dañoo xamee ci jàmm dëkk bu pacifique am na sax ñu demoon ba naan est-ce que Macky Sall liggéeyul woon population bi. ndax kenn du wax kenn du manifester boobu xamuñu woon kuy sénégalais sénégalais am na waxtu coow wax du gauche à droite mais am nañ waxtu jàmmaarloo te yaakaar nañ ne Macky sàll foofu la bëgg a woowaat sénégalais yi ndax kàddu bërki démbam yi daf ko wane. amul jom emploi yi muy tudd yëpp ay soldats la ko bëgg a recruter temps yi nee nañ police dafay recruter ay junni doomi aadama déjà directeur bu police changé nañ ko gendarmerie également nee nañ dañuy renforcer ak parce que ci xelam neena da fay wajalay jamarlo Macky Sall parewul pour défar Sénégal ci xex la bëgg wo sénégalais yi wul pour jappalé ndaw yi Sénégal lay jàppale mooy ku lay mais Macky Sall actuellement dafa am ben haine ben mbagnel bu mu jappal jeune yi gannaaw lu fi xew ba mënu ko neub mi ngi nan da fay dimbali ndaw yi ci emploi mais mënul sax neub haine bu mu jappal ndaw yi ndax yow yaangi wo doomi adam yi ci liggéey Sénégal ni da ngeen di financer ba nopi di leen menacer di wax di matu melni xalé bu ndaw ci magum jëm dañu xamné réew mu am démocratie rek moo mën a tolérer li xew fii am na réew yoo xam ne citoyen xalam ñemewul xalaat ne di nga dem di attaque gendarmerie gendarmerie fa la arme yi nekk nga dem di ko attaque tribunal nga dem di attaque di yàq di taal këru jàmbur yi comme ça gratuitement mais loolu jàll na mais loolu mënatul am kon mbiru milliards yi ñu tudd fan yi yëpp ñun duñ ci sax attardé wu di ci commenté ndax ku gëm waxi Macky mooy comme ni ñu ko waxee woon suñu page Facebook jàppal ne yaa ngi ci ay nelaw yu xóotu xóot ci déception ngay dëkk ndax Macky Sall du wax dëgg. la preuve bërki démb conseil présidentiel tappale bi mu amaloon ne emploi des jeunes la ko jagleel benn jeune moo ko laaj ne ko da nga ñoo diggoon ay Jakarta fan nga ci toll mais déglu leen réponse su Macky Sall. laajoon ci wàllu Jakarta yi c'était yaakaar naa ni euh, notre ami. Saher, Tambedou. Alors, ministre m'a fait parvenir que Khalis Bindan ndimbal au niveau des gouverneurs vous avez reçu ou pas. gouverneur parole Jakarta. cette question est revenue par par par l'intermédiaire de la presse disant que nous avions reçu les moyens pour les, pour Mais ici, au nom de, mes collègues, je crois que nous n'avons encore rien reçu. Nous avons, nous avons l'ensemble des recensements. Les recensements sont disponibles à notre niveau. Si toutefois on les reçoit, avec donc des précisions concernant donc euh, la distribution, je crois que nous allons le faire. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore reçu. Voilà, je vous remercie. xam nga gàcce gu rëy gii ci koo xamante ni nga yow yaay président jàkkaarloog ay ndaw yu am 17 ans jàpp 30 ans jëm kaw di wax lu dul dëgg keneen ku mu daloon ku dul Macky Sall te ngay gor ci saa si ngay démissionné dafa dig ay jeune ay Jakarta gouverneur jël tam ak ay moyens dal di recenser ndaw yépp ñi nga xamanteni ni bëgg nañu am ci Jakarta yooyu noonu gouverneur dal di leen di bind ci benn liste pour bu Jakarta yi génné ñu xam ci ñan la wara dem. mais ba démb ba sànq ci suba booy yi gisuñu luy niroog pneu Jakarta nga tas seen yaakaar taxaw di xoggaliku naan da ngay menacé moo tax ñu ne leen kii amul jom ku yaakaar ci moom torox ñun bu amee message bu ñuy lancé jeunes yi mooy bu leen compter ci Macky Sall milliards yi ngeen di digg yi yëpp mooy la waat pour sàccat ay milliards yóbbu ko seeni compte bancaire toq yërmande amuñu ko nit ki nag bu la yërëmul du la mën a dimbali. ku mëna jël xaaliss ñu jaar ci gaal yi nga profito ci wut say financement union européenne jox la ci ay milliards nga jël xaaliss bobu non dal di koy lek taxaw di len xol sans gêne boo da ngay wutal daw yi xey waxo deug biru emploi des jeunes nak képp kuy borom xam-xam wala ngay gëssu tuuti war nga xam ni état moy créer conditions yi mais du guéné xaaliss ni rek ay milliards diko jox ay kuréelu ci melni DER ñuy def lu len neex du nonu lañuy créer emploi état nak lay créer emploi dafay fekk benn secteur buy dox mu leer ko ni lii bu ci dugalee loxom mën na jox chance ndaw yu baree bari nga daal di jàppale secteur boobu noonu. tey dañ leen di jox rek benn exemple muy wàllum napp jën mais secteur la boo xamante ni ñi ci dund moo bari kii dem géej muy mool bi ñiy dem di jënd di ko jaayaat ñu koy transformer mën nga sax créer usine boo xamante ni dañuy transformer yenn jën yi yu ci mel ni thon di ko def ci ay pot di ko jaay ci biir réew mi wala bitim réew géeju Sénégal kese waroon na créer ay millions emploi mais naka lañu def dañoo jël géej gi yëpp dal di koy jox waa Union européenne ak chinois yi xol leen vidéo bi nii. mais gis nga licence yaa ngi nii te président nee na signé wul benn licence te gis nga actuel ma xool kii te gis nga licence bato bi mu ngi nii Sénégal fii lañ ko signé signé wuñ ko feneen léegi nag dañoo bëgg ngeen wax citoyen yi dégg wax ak doomu réew mi xam nga parce que lii nii tegewul fenn yàq bi métti na. licence baa nekk nii ngeen ni seen benn bato chinois lañ ko jox. le 1er avril 2021 bi ñu weesu lañ ko signé yàggul donc mënoo jël lenn li gën a am solo cim réew jox ay étranger ba noppi secteur boo xamante ni mënoon na créer ay millions emploi mënoon na créer ay millionnaires parce que wàllum jën dafa bari xaalis nga jël ko daal di koy jox tubaab ak chinois yi. waxoon nañ liñ ci vidéo bi ñu defoon ci licence de pêche yi Macky Sall signé que bateau yi ñu fi indi bu ñuy napp ñoom dañuy roñ du ñu bàyyi dara muy taxawaalu ci géej gi. quelques mois après gannaaw bu ñu waxee woon loolu résultat yaa nekk nii. ñun suñu président la ñuy waxal ñun suñu président la ñuy waxal fan la moolu Sénégal jëm parce que jël nañu géej bi jaay ko an Sinoa ba mu jeex takk bu ñu ñëwee léegi ñu ne jaay ñu géej léegi xool leen lii jën yi war a màgg yëpp dañuy tànn liñ ci soxla li des ñu sànni si ndox mi jën yi waroon màgg ëllëg moo li napp ak jëriñoo ko si réew mi ñun fan lañ jëm xool leen lii ba xam jaadu na xoolal ma lii lii est que lii yoon xoolal ma jën ndaw yëpp. li waral li parce que buñu ñu joxee bek chinois autorisation ngir ñu napp suñu géej ñun Sénégal amuñu moyen pour contrôler di caytu li ñi def ci biir géej yi wala buñ ko amé itam ñom amna fuñu jaar ak ñu wara a mbir yi dal di leen corrompre légui kan mo ci loru moy mol bi dem géej ñi dem di jënd jënd di ko jaayaat ci marché yi mo xam fu mënti doon ak ñi def walu transformation légui xol secteur bobu nonu ñaata emploi nga sacrifié ay junni junni emploi ba nopi nak nga daldi wolbeutiku ne da ngay wutal jami xey Macky Sall kan la yab maanaam buñu fonto sénégalais yi buñ leen nax bëgg deemoo njaay dañu gis bénn vidéo bu dawloo suñu yaram xam nga gannaaw ba Macky Sall jaayee géej gi jaay ko tubaab ak chinois yi jaay ko tu jeni ñu ci baree bari seen liggéey fa yàqu parce que mool yi bu ñu demee géej loxoy neen lañu ñibisé légui yeen ci suñu yaay pour baña tok ci benn coréen la dem di fa jënd pour mën ko jaayat am lu yobu seen kër. xew Imagine andando a Senegalí. Es cierto. fii benn poissonnerie la poissonnerie bi ay coréen ñoo ko moom dañuy ñëw di dem di jënd suñu tëgg suñu di ko ñu ko jaayaat suñ jigéen rang rang pour jënd jën tandis que marché moom mënatoo faa am li xew Europe di dem ci coréen di ko jëm ci ñoom ñun Sénégal ñun lii la ñuy dund gis leen ci yéen ñun lii la ñuy dund gis nga ay coréen ñoo ko ci ubbi mu ngi nii fii ci cité cypress boo wàccee sédiment bi pour dem di fi cité cypress rond point cypress mu ngi nii jigéen ñaa ngi nii ñoom ñëpp dañuy rang pour jënd jël ay coréen mu ngi mënatuñu am jën suñu marché yi ak suñu géej lii moo fi am waaw daa moo am Sénégal lii kenn mënu koo nettali donc day nag su soree di ko jënd jën xam nga ne lii moom fii rek la am gis bi doy ngeen fan la situation bi toll ay étranger ñooy ñëw napp suñuy jën ba waa doomi réew mi duñu gis dara buñ demee géej léegi étranger yooyu noonu ñu jëlaat suñu jën yooyu noonu nga xamante ni suñu géej gi lañ ko nappee di ko jaayaat lu gën a maire yi te suñu yaay yooyu noonu dañuy obligé jënd ko parce que buñ ko deful duñu liggéey kër ga duñu am lu ñu lekk fii la Macky Sall yóbbu Sénégal en 2021 dafa toroxal askan wi def leen ay doxandeem seen biir réew moo tax bi ñuy fête 4 avril bi weesu gisoo leen ñu def ci benn publication parce que ñun moomuñ dara ci biir réew mi bay indépendant lépp tubaab yeeg chinois yi ñoo ko moom ñun ay étranger lañ suñu biir réew kon gisuñu lu fi jar ñuy féete indépendance ndax amuñu ko ci làmmiñ laay am lii nag moo waral xeex bi ñuy xeex parfois nga dégg kenn ku naan du ngeen waxal lu baax Macky Sall ñun ci wàllum gouvernance gisuñu lu baax lu ñu war a waxal Macky Sall au contraire dafa yàq réew mi toroxal sénégalais yi ñàkkuloo leen te xamul lan lañ ko def lan la ko sénégalais yi def moo tax ñuy wax souvent que ni xeex ko ci jaamu yàlla la bokk. dañoo jël rek exemple ci pêche bi mais secteur boo mën di jël ci Sénégal Macky Sall daf koy yàq yaxet wàllum agriculture des na tuuti sénégalais yi dootuñ am fuñu bayé parce que souf sépp dañ ko jox wa bitim réew defon nañ ci bénn vidéo spéciale suñu cordonnier yi produit chinois yi taxna na bir doxatul menuisier tapissier yi jàppale wuñ leen te ñoom nee nañ soxlawuñ dara état lenn rek lañu bëgg moy mobilier ak lal fauteuil ak yu mel dañuy joggé bitim réew ñëw di leen concurrencer na état wañi pour ñom ñu mëna bëray commande menuisier tapissier yi ñom li rek lañu bëgg bu leen ko defalee non seulement ci at bi dinañ réaliser ay commandes yu bari bari mais aussi dañuy soxla main d'œuvre secteur bi fay attirer yeneen jeunes parce que fay bari xaalis ni la état di créer emploi méttiwul mais malheureusement Macky Sall amul courage ne man sama rew lay protéger samay doomi rew lay ar ndax en réalité nekkul fi sénégalais yi mom kilifaam yi nekk bitim rew ñom Macron loo bi franc-maçon yi ñooñu la teg nit lii faamu leer Macky Sall nekkul fi sénégalais yi lu mu wax su booba ngol lu dul tubaab chinois yi la fi nekkal waxul deug Bate ci mbiru emploi yi yom prouvé que ni ñom créer emploi taxul ñu job au contraire yak ligui jambour yi lañ fi nekké ki ngeen gis nii mu ànd ak Guy Marius Sagna mi ngi am licence am ci di institut bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu hôpital bu par la suite mu dem préfecture bu Ranérou Ferlo ci région de Matam defa def même liguey actuellement Aliou Dembourou Sow wajoju jooju doon fi wax pour défendre troisième mandat Macky Sall mo nekk ci carrière mom ndaw si bamou demé préfecture bu rou Ferlo dañ ko yoré 5 mois de salaire juróomi wér ken fay ko jamono jo xamanteni ñi and ak Aliou Dembourou Sow parce que ñom wa APR dañoo ñom seen boy yo xamanteni dañ leen di duggal ci yenn bërëbu kay yi té amuñu benn compétence moment bi nga xamanteni mom moom Fatou Faye Diankha fayuñ ko 120000 salaire am pendant 5 mois militant wu APR yi ak Aliou Dembourou Sow ñoo ngi ko chaque wér 130000 niveau BFM lañu am xam nga ndaw si dafa jàng ba am bac def concours duggee baat génn ak licence am am compétence ñu koy fay cent vingt mille waa APR yànd ak Aliou Dembourou Sow te amuñu sax bac di fayeku cent trente mille te seen salaire du tardé mais Fatou fay Diakha moom loolu defu ko problème l'essentiel mooy nañ ko fay xaalisam mu gagné viom dignement mais ba coolu jibee Aliou Dembourou Sow ne nañ ko affecté benn école bu ñu naan CM de Conox xale bu jigéen bi ne moom balaa muy dem dañ koy fay juróomi weeru salaire am toll ci six cent mille ñu bañ ne duñ ko fay

ñun laaj bi ñu laaj mooy ku amul yërmande ci xale bu jigéen boo xamante ni moom mi ngi tàmbali woon nekk soutien de famille ku amul yërmande ci moom nooy jàppale yeneen ndaw yi Macky Sall ak ñi mu àndal faalewuñ jeunesse bi lii mooy dëgg kon taxaw seetlu bi tay loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf